sëñ Babacar Si radiallahu anhu moo doon suñu njiit bar gannaaw Seydi Hadj Malick dafa génn ñu laaj ko ni ko góor gi lan mooy métier taalibe mu daldi taxaw mu ni métier taalibe ñu ni ko waaw mu ni mbay ak commerce mu ni waaye bu ci nekk am na lu mu laaj mu ni mbay na nga am jiwu na nga am suuf am jiwu am matériel boo jiyee mu ni te boo nee sama tool bi na fekk muy dëgg nee na lépp abbu suuf lépp jiwu lépp matériel lépp engrais lépp dund naan sama tool waxuloo dëgg nee na négal ba ñooñe jël seen wàll ñi nga leb yooyu yëpp ba xam dara dana ca des wala dara du ca des na am loo ci moom mu ni commerce yi itam dafa laaj nga am tuuti capital leb nag boole ca waaye bu leb rek commencé commerce ne boo lebee commencé commerce ci ngay lekk day daal di jeex da ngay am capital door a commencé neena te bone nee bismillah bañ ni alhamdulillah mu ni commerce am na ñett bukki bu ca commerce bu muccee yàlla mën na ci def sutura mu ni bukki bu njëkk bi mooy banque bi ak fournisseur bi nee ñëw ñaar ñëpp seen pexe mooy nangu li nga am booleeg lañu am soo muusul ñu def la ko nee bukki ñaareel bi mooy clientèle bi bu ñëpp lebee nga lebal leen ñëpp du ñu fay si ne bukki ñetteel bi mooy sa bopp bu fekkee sa frais moo ëpp sa bénéfice da ngay lekk sa capital muy kon voilà yooyu ñaar mooy seen métier yéen taalibe yi na ngeen ko xame noonu su ko defee kon ñu xam ni mbay mooy suñu métier ñun waaw ñi muy seen métier nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu jotee rek ñu def ko nañ ko war a defee su ko defee kon ah mu nee na mi ngi dénkaane Serigne Cheikh mooy wax de man waxuma noot daal la may jox ni ma boo demee jàngal ko nit ñi mu ni ñi nga xam ne itam ñoo yilif doomu aadama yi te état nekk seen loxo nee nañu leen dimbale wutal leen ba ñu am fu ñu mën a nekk ñu am liggéey mu ni liggéey nag du lu ñuy xëy rek wut ko ci benn bés am ko nañu ko wut yow itam del wut ku jëkk a réussir rek baax na mi ngi ñaan jëkkër yi ñu yërëm seeni jabar ndax ne jigéen dafa fragile lu ko jaaxal ak lu ko gaañ dafa yomb mu ne mi ngi ñaan jigéen ñi ñu wormaal seeni jëkkër jàng nañuy sàmme néegu sëy parce que néegu sëy dafa dafa xaw jafe bu jëkk jigéen ñi dañ ko daan jàngal seeni doom ah bés boo amee jëkkër kat boo demee sa néegu jëkkër nii nga fa war a tooge léegi jigéen mooy ànd ak doomam di exploité góor gi suba gisee du laaj ku ko jur ban famille la bokk dafa naan fu muy liggéeyee fu muy liggéeyee rek déedéet da nga naan ci ban famille la bokk fuñ ko yare waaye fu muy liggéeyee rek ndax am na xaalis ak amul xaalis sëy bi yëpp yaa ngi ko teg ci kaw matériel booba sëy ñaare ah niwuñu du dox de waaye la ca yàqu mooy ëpp la ca defaru mu ni kon nag mu ngi ñaan jigéen ñi ñu seetaat seen néegi sëy noonu loolu moo tax chiaaru euh, gàmmu gi ren ñu def ko al ilmu wal amal al ilmu wal amal li taxqiqil amal xam-xam ak jëfe xam-xam mooy tax nga am la nga xam-xam ak jëfe xam-xam mooy tax nga am la nga bëgg mu ni xale yi mi ngi leen di ñaan ñu continuer seen jàng mu ni jàng nag yàggul ñàkk jàng moo yàgg nee na bokk sa kaya ak say livre fréquenter établissement scolaire bu la soob nee na yàggul ñàkk koo def moo yàgg nee na te loolu mi ko jële woon ci baayam Sëñ Babacar Sy nee na bi mu commencé jàng xam-xam ci moom daf ko daan ñaax waaye bokk na ci lim ko daan ñaaxee di ko wax ni ko Cheikh Tidiane jàng yàggul ñàkk jàng mooy yàgg mu nu loolu nag mi ngi koy wax jàngkat yi ci réew mi xale yi jàng ñu xam ni jàng yàggul te nee na jàng loo ko booleel jàng dem bàyyi la foofu nee na mi ngi dénk les responsables ñu moytu égoïsme ñuy jiital intérêt bu général ci intérêt personnel nee na lañ leen jox ci ay responsabilité ñu di ko ñu di ko soppi ngir mbooloo mi te bañ ko soppi ngir seen bopp liggéey pour mbooloo mi bañ a liggéeyal sa bopp nee na ndax boo liggéeyal sa bopp bàyyi mbooloo mi égoïste li lay mën a tudde nee kenn ku nekk ci nun na jéem a yan yan bi ko yàlla yan nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo di yeneenti xeet wi wax na ni kullukum raayin wa kullukum masulun an raiyati yéen ñëpp ay sàmm ngeen vous êtes des responsables te responsable bu nekk su ëllëgee balaa jéggi di dugg aljana gi ñuy xaar ku nekk naan aljana aljana danañ ko laaj lii nga responsable oon fan nga ko jaaree leeg nan nga ko toppatoo nee na yéen Sénégal yi ñu nekk ci biti réew mi nekk ci biir réew mi na ngeen participer ci tabax bi ñuy tabax réew mi ak tabax bi ñuy tabax Sénégal nee na ngeen nee na ngeen bañ fàtte seen responsabilité ci seen njaboot yi moo xam njaboot yi nekk ci biir réew mi la wala njaboot yi nekk ci biti réew nee na wàcc fi sa réew dem ci beneen réew aventure la waaye aventure bu tedd la bu fekkee la nga fa am moo gën li nga am ci sa réew waaye boo fa nekkee tam na góor góorlu ba ñu nawe ci yow sa te nga jariñ sa réew nga fay jële su ko defee na kon loolu la yabee njaboot gi pour ñu delluwaat seet suñu bopp delluwaat xalaat nan la ñu war a doxale réew ba lépp yëwén nee na ñu toppatoo xale yi ci seen njàng ñu def tout pour tegaat leen ci yoonu njàng nee na ndax yoonu njàng dafa xaw a jafe il faut ñu wax ñu teg la ci nee te wax nañu boo bëggee àdduna ju jag na nga am xam-xam soo bëggee alaxira ju jag na nga am xam-xam soo bëggee àdduna ju jag ak alaxira ju jag na nga am xam-xam nee te koo xam ni yëkkati nga sa tànk dox ak sa ndëggu jëm ci wuti xam-xam buy jëriñ ak jëf bu sell nee sa àdduna dana jag sa àllaaxira jàkk loolu moom la yóbbante mbokk yi mu ni te diine ji ñu bàyyi ko xel mu ni suñu kilifa daana dénkaani juróomi yëf nee juróomi yëf yooyu li ñu bëgg ci àdduna ak àllaaxira nee ëmb na ko daf daan wax seen diine faram fànc ko ba mu teer moom sëñ Babacar Si na góor góorlu ci seen diine na ngeen góorgóorlu ci seen tariqa yéena ko jàppal seen bopp na góor góorgóorlu ci seen métier na góor góorgóorlu ci seeni daayira na ngeen góorgóorlu di ñëw Tiwaawan mu ni yooyu juróom soo ko seetee lam ca wax moo ëmb li nuy doxal lépp diine ji ak la mu laaj xam-xam ba mu laaj xam na ngay def ba jaamu yàlla la jëkk ci jaamu yàlla mooy seet laab laab nan la nga xam ko ndax amul benn jaamu boo mën a def te du laab moo ko lal nga xam lu ko bu baax ba mu wér li ni nii la